aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna ah ndax dafa am ku de waaw ñun ñooy dee tey ñun ñoo paree dee tey ndax dañu ñëw min si min wi kenn ku ne dana wut ay xeet teg koronam ñu rayante ñun ñooy de moo tax ma ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiuna wasalaam sous préfet daf ñu promettre woon ne tant que amuñu site de recasement kenn du laal marché bi kon nag soit waxu kilifa bu daanu la wala wax ba nga xam ne teguwul woon parce que bu waxee loolu tey ñu ne tey tey la ñuy toj marché bi te gisuñu si de recasement gisuñu aussi ku ñu dédommagé yëgaluñu aussi ñi nga xam ne ñoom moom cantine kon loolu waxu kilifa bu wadd ci suuf la bokk. dañuy daan suñu doole sàccuñu fenuñu duñu ay bandi bu ñu buggee ñëw si ñun dañuy ñëw si njekk ak teraanga nekk ay kilifa def yëfu kilifa bàyyi yëfu bandi yu ñuy def parce que du ñu ay bandi. Bira Gueye bu taxawee si tele bi di naan. que ñun dédommagé nañ mu yàgg lu ko neex lay wax ndaxte daaw rek la ñu fay patente kon marché bi légalul lu légalul nan lañ siy fayee lu légalul nan lañ siy fayee ay patente lan lañ siy fayee ay juuti ñun nanguwuñu sa génn marché bi duñ duñ génn man sama ndogu dama ko indaale ak sama xëdd fii laay fanaan tey sama ndog sama xëdd dama ko indaale Santy Agne li mu ñu bëgg def tegul fenn beneen maire mooy ñëw teg projet bi wan du Santy añ tandiyaañ dañ ko bind ba sonn amul benn rep amul benn lenn lu ñu tontu lettre yëpp maa koy yóbbu dem secrétaire bi signal ma charge décharge ma téye amul lenn lu ñu tontu lii la ñuy tontu wan fi ñuy fekk tey bu ñu ñëwee pour waxtaan daan waxtaan ak ñoom bu ñu indiwee doole daañ fi fekk doole ndaxte marché bi ay ndaw a fi ne te pare ñu kenn ñëw salfaañe suñu àq ak yelle ñun lu ñuy déplorer mooy ñàkk waxtaan bi ak ñàkk teg si yoon bi nañ ko teg si yoon wala buñ ko tegul si yoon buñ ko tegee si jaay doole buñ ñëwee fekk fi doole